dañu seetlu ni mhm. euh, parti pur soo seetee si ñi nga xam ne sax dañu am xam-xam ci wàllu politique am na benn pourcentage boo xam ne dañ leen koy jox ci ma wàllu électorat à chaque fois mhm. euh, est-ce que le fait que parti pur jóge am benn entre coloration religieuse bu ñu bu ñu bu ñu juumul ndax ki ko sanc ak ni ni ni ñu organiser woo ak ni ñuy ni ñuy rassembler woo est-ce que loolu du frein pour que parti bi gën a gën a màgg en termes de massification parce que tout simplement euh, ñu gën a bëri ci euh, euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak waa PUR ci ay militants am taalibe sëriñ bi lañu d'abord ñu ci gën a bëri est-ce que loolu aussi nekkul benn frein pour que partie bi mën a jógee si si volet religieux boobu pour nekk un vrai parti boo xam ne day day woo ñeneen parce que loolu mooy perception wu sénégalais yu yu bëri donc euh, te bu fekkee ni bu ñu xoolee évolution bi est-ce que pur par rapport ak deux mille dix-neuf euh, est-ce que pur yokk na wala wàññeeku na parce que am na fu muy toll ba nga xam ne gars yi dañu jël benn pourcentage wékkale ko ci benn parti finalement parti boobu day dem ba nga xam ne. Euh, faiseur de roi rek la mën a nekk mooy que mooy bëri na ay parti politique yoo xam ne peut-être que seen chance bi ñu am bu ñu xoolee kii yi mooy bu deuxième tour amoon kan laa mën a àndal ba mu basculer loo euh, électorat bi est-ce que vraiment euh, objectivement loolu du frein par rapport ak parti bi ni mu war a évoluer mu mu évoluer ko et je pense que loolu c'est important beneen bi beneen bi moom mooy euh, c' est vrai que ñu sénégalais yu bëri xamuñu la woon parce que extérieur nga nga nekkoon est ce que yaakaaroon ni euh, jot na tey euh, ku mel ni yow nga xam ne sëriñ bi yow la yow la désigné pour nga pour nga jiite parti bi ci élection yi nga est ce que loolu du responsabilité boo xam ne yow yaa ko war a dox ba nga xam ne barrière yooyu nga mun ko barrière religieuse yooyu nga mun ko daaneel ba proposer leneen loo xam ne en dehors de taalibe yi nga xam ne sëriñ bi am nañ ko yeneen sénégalais lambda yi mën a adhérer ci parti bi est-ce que loolu du sance boo xam ne loolu moo gën a war a nekk sa challenge. Mhm. pour que ñu constater que le parti pur a de vraies chances d' d'avoir un candidat qui qui gagne à l' élection présidentielle. merci Bouba euh, question bu am solo mais heureusement da nga utiliser benn moo boo xam ne dafa capter sama attention mooy perception. donc euh, perception mën na nekk lu réel mën na nekk lu woo xam ne lu réel. mën na nekk loo xam ne nekkul donc euh, perception la euh, ma gëm ni le pur wax naa ko à plusieurs reprises amul benn connotation religieuse ci pur damay wax ni sunu constitution sax permettre ñu ko ma gëm ni bu fekkoon ni le pur perception boobu lu réel la kon tas nañ ko bu yàgg a que puisque ñun ñëpp xam nañ ne ci sunu réew kenn mënu fi sos parti boo xam ne ci diine nga ko teg kenn mënu fi sos parti boo xam ne ci waaso nga ko teg kenn mënu fi sos parti boo xam ne ci religion wala ci ethnie wala ci lépp wala ci euh, région wala ci lépp lu mu mën a doon donc damay wax toujours ne le PUR c'est un parti qui est légalement constitué et reconnu par euh, la loi sénégalaise donc perception boobu man gëmuma ni euh, lu nekk la Bruno Derneville xaw ma ndax mu ngi fii ou pas Bruno Derneville par nga ko xam c'est notre directeur de campagne c'est un chrétien c'est un catholique pratiquant donc nekkul koo xam ne taalib mustarchidine wala mus wala mustarchidine la dafa nekk koo xam ne dafa gëm am gëm-gëm boo xam ne gëm na ne pur li muy porté projet bi muy porté moom il s'y retrouve mais le pur Bouba yàlla xam ne ni li ñu am ci ay militants yoo xam ne ay chrétiens lañ kenn xamul nu mu toll ba démb laa ci dajal kenn à Jifeer wala à Palme à Joal c'était à Joal à Joal donc boo demee dans le sud moi j'ai été dans le sud Oussouye Cap zone boobu yëpp tous nos responsables du parti ce sont des chrétiens ay catholiques lañu donc am nañ sax ay maires yoo xam ne ay catholiques lañu ici dans la région de Thiès am ay conseils municipaux ay conseils départementaux j'en vois tous les jours yoo xam ne ce sont des chrétiens parce que gëm nañ ni ñoom seen idéal politique ci pur la nekk pur moo koy incarné donc vraiment loolu c'est une impression et moi je considère que c'est une fausse impression d'abord mais, président pour dugg foofu rek mm-hmm. euh, parce que ñun aussi ki kii réew mi lañ dëkk mm-hmm. si comme yow mm-hmm. di di di saafoonteeg nit yi di waxtaan ak nit ñi je parle pas des presque des exceptions parce que effectivement à chaque fois dina am ay nit yu adhéré ci parti bi. Mhm. mais je parle globalement. Mhm. te loolu Sénégalais yi ñuy seetaan je pense que ñu bëri war nañu mën a waa en général en général loolu pour man candidat bi nga doon. Mhm. ah bu ma ci génnee parce que pour man président wu parti bi am na jéego yu mu dox yu bëri pour au départ foofu la affaire bi jóge wax fa dëgg yàlla tamit loolu. je pense que Sénégal la ñu nekk kenn mënul fexe ba nga xam ne loolu ñu gëmm ci suñu bët. parti bi fi mu fi mu jógee li ko li ko may doole ñëpp xam nañ ni dafa jóge ci quand ci ki nga xam ne moom moom moo sanc parti muy président bi. muy hmm. président Serigne Moustapha ci yàlla na fi yàgg te wér. Hmm. mais dama ne tey jii ni ñun sénégalais yi. Hmm. ñun sénégalais lambda yi. je parle pas des exceptions effectivement dina am ñenn ñu ñëw adhéré mais impression et c'est même pas c'est pas une impression c'est une réalité. parce que dañu nekk ci dëkk bi dëkk fi ak yéen aussi quoi est-ce que yaakaaroo ni ki nga xam ne moom la euh, président bi tànn su challenge bi gën a mag mooy essayer ba nga xam ne day adhéré loo ay nit yoo xam ne ils sont pas nécessairement issus de de de de de, de taalibe bi. mais en, je vais euh, ci loolu laa si vous si vous permettez si mm-hmm. mais ce sont les perceptions du vote. Mm-hmm. Mm-hmm. nangu leen que képp électeur bu nekk perception la am moom mooy voté je pense que la question de Bouba la am na solo dans la mesure où dans ñuy dem di ut ay voix nit ñi ñu soppelu ko wala seen perception naa si loolu la est-ce que aujourd'hui man question mooy est-ce que le pur pour qu'on pour dem kii ne souffrirait-il pas d'une perception d'une mauvaise perception oui mais on y travaille donc du coup ñun on travaille dans dans la déconstruction de cette perception là ci la ñu nekk ñun man en tout cas ba mu ñëwee ba léegi je pense je suis allé voir tout le monde je suis allé voir les sénégalais ñoo xam ne et puis Serigne Moustapha il a été le premier à nous dire dem leen seeti nit ñi parce que le projet qu'on que ngeen ngeen di porter c'est un projet pour le Sénégal c'est pas un projet pour benn daïra c'est pas un projet pour benn tarixa c'est un projet pour le Sénégal donc moo tax <coughs> on est allé partout voir les Sénégalais et depuis gis ngeen le mouvement bi nga xam ni euh, coalition bi nga xam ne mettre nañ ko en place AMD 2024 on a plus de quatre-vingts mouvements et partis politiques yu ci nekk des gens qui son à la base et ñooñu kenn mënul taxaw wax ni c'est des gens du ci mouvement euh, Moustarchidine wala Moustarchidat la ñu bokk wala ay Tidiane la ñu wala non vraiment nekkuñu ci yooyu et projet de société bi nga xam ni moom la ñu porté nit ak naataange vraiment boo ko liree du debut à la fin di nga xam ne c'est l'humain homme avec grand H moom la ñuy focus ci moom pour defar ko et defar réew mi donc ci perception boobu évidemment ñu ngi ci liggéey liggéey bu am solo pour déconstruire ko parce que gëm naa ni man en tout cas gëm naa ni loolu c'est une fausse perception boo xam ni évidemment nit ñi dañ koy coller au pur mais en réalité c'est pas c'est pas vraiment c'est pas vraiment la réalité hein c'est pas la réalité donc et on y travaille on travaille sur ça mais euh, am na quand ay sénégalais yu bëree bari yoo xam ne ñu ngi ñëw di adhérer ci projet bi chaque jour chaque jour chaque jour maa ngi wax ak ay sénégalais chaque jour on a des gens qui viennent nous voir ñoo xam ne ils n'ont absolument rien à voir avec avec le avec mouvement Moustarchidine wala Moustarchidat parce que ay sénégalais lañ gëm nañ projet. Allez Badara. deuxième voilà. question. Ah, allez vas-y ma ne est-ce que jotul que euh, fonctionnaire international bi ak yooyu yëpp. que nga nekk ci terrain bi parce que sénégalais yu bëri tey jii ñu ci gën a bëri non nga gën a nekk ci terrain bi. mais ci laa nekk